asalaamaaleykum mbokku Sénégal tey dama yeewu ak xol bu metti xol bu diis yaram bu diis ak tumuraanke ndax lan ñaawteef yu metti yi ñuy del teg jigéen ñi bés bu yàlla sàkk te gisaguñu lenn loo xam ne rekk daf koy saafara gisaguñ ko en tant yaay soo déggee walla nga gis dara sa àddina bi yëpp dafay tukki tey jii juma mais mets à la place de la maman de Binta lan lan la yaay ji instant yi di dund lan la baayam di dund lan la waa këram di dund ndax lan neex neexu doomu aadama ndax lan bonu doomu aadama ndax soxoru doomu aadama dañu nekk ci dëkk boo xam ne insécurité bi dafa metti te dafa doy waar maintenant te jógewul nag demul ci kenn aussi ku dul ci jigéen ñi lañ koy teg démb xoola femme bi ñu rey wakaam ñetti fan mu nekk fa bay waaj a pour lan mu fan ta kenn du ci wax ani sunu politiciens yi bu election yi jotee ngeen fatt ñu ku ne di wax lan réew mi leer na ma ni parti bu mu mën ci doon jigéen ñee ca ëpp doole ba tax tey ji ngeen doon ki ngeen doon mais lu xew kenn du leen ci dégg te bu lu dul politique yéen ñëpp neen taxaw maintenant on interpelle l'état du Sénégal Nous la interpeller di interpeller aussi le ministre de la justice et le ministre de l'intérieur et le ministre de la femme Nous dañoo sonn Nous yori njaboot bu Nous avons les moyens yi pour yenn kaaraange yi yéen yéen ñu faire jox kon Nous taxaw temb pour xaar seen ay réaction par rapport ak li nga xam ne ay xeetu ñaawteef la te teguñu ci kenn ku dul ci ay jigéen nga yar sa doom jur ko ak doom nu mu neexee nga jur ko yaakaar ci moom yar ko ba mu toll nu muy toll mu war la jëriñ jëriñ askan bi benn samba boy ay samba ñëw def seen ay ñaawteef te amul lenn lu koy dindi mu tegu fan en tant que yaay maa ngi lancé appel que ñëpp jóg taxaw temb pour ko problème bi mën a nekk problème boo xam ne dañ koy paase moo gën ndax kiy ñàkk ñàkk na ba pare te amul benn daan bu sévère bu doon réew mi ñu ne ku def dara daan bu rëy tegu sa kaw kon tey lu bëri kenn du am sañ-sañu def ko mais seetaan bi dafa ëpp et on dit ça suffit doy na en tant que mère yaay laa sama xol bi dafa dagg dafa doy imaginer nii famille bi kenn ne la watul pour lan pour lan ay xeetu ñaawteef ñépp toog di seetaan kenn waxul pour lan politiciens yi jóg leen nag wax jot na jóg leen dem ci télé yi def seen ay débat comme yéen yéen a fi nekk rek di wax wu jóg leen nag ngeen wax ci coow li wax leen ci kaaraange askan wi ngeen wax ko te ba bi ak xiiro beeg ngaayo bi ndax amul sens sino dañ leen di boycotter te dañuy taxaw temb képp kuy jigéen maa ngi lay lancer appel lépp lu fi xewati eh, ci côté politique ngeen boycotté leen parce que faale wuñ ñu safoo wuñ ñu taluñu suñu ay njaboot wasalaam su dee wax ji dafa am kenn ku mu déranger maa ngi jéggalu mais ngeen jàpp ne que rek dama nekk yaay te sama xol bi dafa metti jërëjëf